bis bi nga xamne nak tay mom nga ma laaj muy aljuma ji mo nek hadra juma hadra juma kenn ku ne xamna ne def di dafa bok ci sartay tariqa bi ci nga bo xasse ba jàpp tariqa bi da nga war di dem hadra di hadra ji hadra bi nak li tax ñu jëmmal ka nii ndax mom moy adra bi nga xamne buñ ci bayiko dañuy dem waajali ziyaare boggal loolu moo ñu jëmmalé ko ni wo ci ay kilifa woo ci sax ñi nga xam ne kilifa lañ ci tariqa tijaan yi muy sharif yi nga xam ne ñoom tey ñoo fi njabootu Cheikh na Tidiane radiyallahu taala an ku mel ni ki Chérif Hamza di ku baax mais di koo xam ne itam ku bëgg sénégalais yi la mais dafay gëstu itam kër diine yi kon tey bu ñu ko wooee fii mu ñëw fi eh, macha allah loolu dafay nekk fierté ci ñun mais day nekk lu lu lu lu rëy ci ñun eh, yemuñ ci moom rek. am na yeneen i kilifa yu bari yoo xam ne bu ma ci tuddee kenn ci sénégalais yi doy na sëkk muy kan Thierno Amadou Ba bu Mbambilor borom xam-xam la borom mbooloo la borom diine la day jàngale te it di ku baax di ku nooy kon kooku itam suñu ko wooyee ci bis bu màgg bi kon da ngay gis ne bis bi jëmm na ba pare kon da gis ne Dakar activité yi bu ñu ñëwee di ñu laaj nag ci bis boobu pour ñu wax cee waxtaan bis bi moom ni ko tiijaan yi war a doxalee mooy dañ ci xadara xadara nag mooy mooy tuddu tudd yàlla tudd yàlla bi lan moo ci jiitu astaghfirullah nga labal sa bopp wan yàlla ne ko nag yaa may jéggal kon jéggal ma ndax ma mën a dugg ci xadara bi bu ko defee xadara boobu nag boo ciy dugg boo jéggaloo yàlla ba pare nag ci ngay jàng nag salaatul fatih julli ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam porte bi ubbeeku na bu porte bi ubbeekoo nga dal di dugg nag ci biir xadratul ilahiya bi loolu li muy signifié si bi alayhi salatu wasalaam daf ne oon ana baabullahi ayumri in ataahu min xayri la yadxulu maay buntab yàlla bi nga xam ne ku jaarul ci man doo agsi loolu moo cheikhuna tijaani indi salaatul fatih bi pour nga ubbi xadra bi nga mën a dugg ci xadratul ilahiya soo paree nag nga commencé yaa xam nag sa xadra da ngay wax la ilaha illa allah door a wax allah wala da ngay wax الله با دور واخ لا اله الا الله ولا دا نغي جيل بن باي با تي ديس ناخ يوي ييب بو ديمي تي طريقه تيجاني دا كوي نانغو مي نون داني بولا ñaar ييب تي بو ديمي تي فاكهه الدوان بو مام سيدي حاجي مالك مونكو فاي جانغالي nga gis ne kon hadara euh, juma bi daf di adra bo xamne bu jëm la ndax mom lañuy wajalé 23 24 25 janvier muy ziyare général bu cherno abdourahman bari di amé ci bogal ci casamance ci région bu Sédhiou kon ñu ngi ci woo julli ñi ñëpp nag bàyyiwuñu kenn képp ku dégg woote bi wala ñu ne la Dakar Actu yi jàngale na benn euh, anoos ci télé bi yow daal bokk nga ca ñu woo ci tàllal ñaa say loxo ñaan yàlla moo xam da nga ñëw wala da nga tàllal sa loxo ñaan yàlla ndax bis bi ñaan rek lañ ci jublu nag du leneen nag dajale mbooloo mi yëpp pour que tàllal loxo yàlla te yàlla bu boobaa yaakaar naa ne dootu sañatee bañ ndax def ne adduuni astajib lakum kon boo jëfandikoo làmmiñ wudul sa làmmiñ rawatina ci ay kilifa yu nu yaakaar seen mag seen may yàlla euh, yaakaar seen jege yàlla yaakaar naa ne ku ku ku ku bés boobu bul fexe ba tardé boobu la bés bu ñu at mu bés mi dafa tënk bindee fi yëpp maanaam mm, dafa jëmmal mbindeef bu ci boole boppam bokk nga ca ku ci génne sa bopp nag yaa ci génne sa bopp at mu bees mi na nekk atum jàmm na nekk at moo xam ne yàlla daf ñuy nangul ci boppam lépp lu ñu ko jàmm mu nangul ñu ko waaye na doon at mu bees moo xam ne itam daf ñu ciy may jàmm jàmm nag ci la lépp xaj moo tax jàmm jooju ñun ñëpp dañ ko war a ñaan ci premier at mi boo ne ma nag daf di nag atu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax 2020 bi ma ne la hankay macha allah war naa mën a ne parce que yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa sàkk yonent bi pour boppam mu sàkk lu dul moom ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te lépp mu ngi bàyyikoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafay wax mu ni kullukum min aadama wa aadama min turaab dafay wax ne yéen ñëpp yéen a ngi bàyyikoo ci aadama aadama boobu yonent bi di wax nag moom ci boppam la namm ndax boo demee ci alquran mu ngi koy wax naan yow muhammad tànk yaa ngi ci sa ci seen biir man sama mbugal du masa dal ci yéen gannaaw yaa ngi ci seen biir rek man sama mbugal dootu dal ci ñoom kon da ngay gis ne nag yonent yàlla Muhammad boobu sallallahu alayhi wa sallam la muhammad boo ko xoolee topp ko ba toj ca biir dafa lay jox jàmm ndax moom jàmm la doon woote jàmm mooy lan mooy nit ki dund yàlla xam nga dund yàlla boo ko xasee ba def dangay gis ne effacé nga ci lépp loo xam ne dafay sikkal dundu doomu aadama te loolu rek lañ soxla nag sëriñ bi kon at mu bees bi daal nañ ci lu ñun ñëpp ñu fexee am jàmm ñun ñëpp ñu bokk ko itam dund ko ci jàmm mu nekk yokkute